aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na inna min aathaari nicmatillahi ala annaas inna min aathaari nicmatillahi ala annaas an yabcata fihim rasulan min anfusihim inna min aathaari nicmati illahi ala annaas an yabcata fihim rasulan min anfusihim maanaa dafa mel na yàlla xéewalam yi dafa bare lool waaye bi ñu ci gën a amal solo moo di may gi munu may tànn ci sunu bopp kenn yónni ko ci nun yonent boo xam ni ah ku tudd mbokk nit ñi tudd ko waaw lu ko dàq amul bokk ak ku gën ñëpp di njaboot ci ku gën ñépp lu ko gën di xéewal amul waaw di yonent boo xam ni dafay fekk ku sellul mu sellal ko fekk ko xamul mu xamal ko yonent bu nga xam ni dafa fekk ñu texee di mu fexe ba ànd ga ñu ànd ak moom ñu texe ca waaw di yonent boo xam ne fekk mooy àddu nga di ko déglu yaa ngay yéeg jëm kaw asamaan te yëguloo ko waaw yonent boo xam ne dawal sa bët ci moom rek doy na yaroo àdduna ak àllaaxira waaw ku dawal sa bët jëm ci moom dootoo ñeme yare di ko yonent bu nga xam ni tànk ngay toog ci keram yaay sangu mbindéef yi waaw bu di yonent boo xam ni nag ci yooyu yëpp bu wéyee la nit war a am rekk yaatu dënn gëmu ca am kenn dabu ko ca waaw mën a muñ gëmu ca am kenn dabu ko ca rëy xel ma mu ca am kenn dabu ko ca waaw e, e, e, tedd ci mën a ànd ak ka mu àndal kenn dabu ko ca bare ga mu bare kersa kenn dabu ko ca fa mu jëm na mu selle kenn dabu ko ca waaw waa boroom xam-xam ba dañ ko ni waaw moom yonentam gi lan la mu ni yéwénu dund la goo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku yéwénu dund goo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku loolu rek lañuy ñuy mën a tudde e, e, e, yonentu yonent bi maanaam yàlla dafay jékki-jékki xool nit ñi gis ñu nekk ci yeneen yoo xam ni xam na ni gën nañu tedd noonu ñoom nit ñi waaw mu xam ni moom it yàlla gën na nekk yàlla noonu waaw mu bëgg a soppi affaire ba yéwénal ko ba ku nekk xam ni nit tedd na looloo sabab mu yónni yonent bi nee na ba tax na loolu kenn amul lu ko féete kaw ci war a mën a wax yonent bi lana ko tax a ñëw waaw waaw adduna bu toskari yàlla xam ni mënatul dabaatal àdduna bu toskari bi te yéene ni nit ñi jàmm mu jox leen muhammad waaw nee na moom nag dégg gi mu dégg moom yonent bi ak xel mi mu am moo waral ci moom mu nekk sangu way xellu yépp képp ko xellu mooy sa sangu waaw ah dégg gi mu déggit moo tax buy dégg yépp ci moom lañu jëm waaw nee na te loola sabab mu nekk di kiy ommat nit ñi di leen ommat te xam ci seen jagley bakkan ak seen jagley ruux xam na ca xam-xam boo xam ni tax na lépp lu mu mën ci doon moom xam na la cay sabab xam na la ci yàlla war a dogal ah, ndax bu fekkee ni danga war a ommat nit ñi te xamuloo seen jagle bakkan xamuloo seen jagle ruux doo leen mën a ommat waaw waaw jagle bakkan ak jagle ruux dafa am ruux bu nekk am na lu ko yàlla jagle ndax ruux loo koy tudd mu gàtt lool waaye àdduna la waaw àdduna la bu yàlla tànc waaw nal ko nala nala nal ba mu mën a dundal yaramu nit rekk waaye kenn xamul na ruux toll waaw la ca ne ci ay jagle ndegem jàngkat mooy topp ñax yi ñax gi nangam a koy dundal nangam a koy defar ñax gi nangam te fekk ci toolu jàmbu rek la nekk ku dem ci toolu ruux war nga xam ni boo xamul jagle ya ca nekk soo waxee nit ñi dama leen di ommat def nga musiba waaw waaw ndax kon dafay xaw deme ni sama mbokk doomu ndar ma ba mu xamul toolu dugub ñu dugal ko ci toolu dugub ba fekk dugub jàngee focc mu jël ciseau di dagg poccit ma ñu ni ko lii lan la mu ni dama wut bouquet waaw waaw waaw moom defe ne ni bouquetu fleur la waaw ñu ni ko def nga musiba dagg nga dugub bu jàmbur ji yépp waaw ah ba tax na su fekkee xamuloo jag-jag yi ruux yi ak jag-jagi bakkan yi bu leen jéem a mukk bàyyi leen fa te wuti ku la ommat waaw nee na moom nag xamoon na jag-jag yépp ba tax na daal mën nañu wax ni euh, moo sës noppam fi yàlla di àddoo jëm ci sabab yi ak dogal yi moo fa sës noppam waaw loolu nag pexe amu ci nee na it boo seetloo it doo xam dafay dégg sabab yaag dogal yi daf koy dégg rek wala boog yàlla def cay topp bëgg-bëggam dafa mel ni yàlla daal def cay topp bëgg-bëggam ndax cër bi mu ko sédd ba loola tax bu masaan àddu nga xam ni fa muy jële du fii waaw bu àddoo rek nga xam ni fa mu jële du fii waaw moo tax ah mbokkam jaafaru sadiq waaw wax na lu ni deme bañ ko seen mbokk moomu leen ni yonent la lu mu leen indil ci lu baax jaafaru sadiq moom lañuy ñuy wooye dul janaxayn waaw doomu bay tëxu yonent bi la moom lañu daggoon ñaari loxoom ca xare mu tëtë waaw muy xare boo xam ne ñi yonent bi fonkoon ñépp ci lañu dem waaw ci la doon wëri buntu kër gu ne mu taxaw fa ndax keroog buntu kër gu nekk boroom kër ga dee na waaw fu ne mu taxaw fa di di njaboot si fu ne mu taxaw fa di dëfal njaboot si waaw bañ ko ne jaafar dagg nañu ñaari loxoom mu ne yàlla dana ko defal ñaari laaf yu moo naawee ca aljanna waaw dañu di ko wax dul janaxayn bahalilu minhum jaafarul wabnu ummihi aliyun wa minhum ahmadul mutaxayaru ca géwélam ba waaw xasan ubnu saabit raayam bu rafet boobu la mu def ci ñoom tabarkalla jaafaru sadiq dañ ko ni lu tax ngeen topp ko mu ni kun kunna qawman ahla jahiliya naabudul asnaam dañu nekkoon nit ñu réer di jaamu xërëm wa naakulul maytata di lekk médd wa naatil fawaaxis lu ñaaw nu def wa naqtaul arxam fu bokk nekk nu dagg ko wa nusiul jiwaar ku ñu dëkkaaleel du ñu sàmm sa àq wa yakulul qawiyu minna daif ku man sa moroom duma waaw nu nekk ci loolu ba yàlla yónnee sinu ku bokk ak nun nu xam askanam xam dëggoom mësula fen mukk ba nu ko xamee muy Muhammad ba léegi waaw waaw nu xam wëllëreem waaw masul sànk kóllëre mukk ñu xamit nu mu fegoo ba suñu ko bett ci lu ñaaw mu woonu ni kay leen jëm ci yàlla ñu ni ko lu tax mu ni nu wéetal ko te jaamu ko te bàyyi li nu daan jaamu ak sunu bàyyi ci ay doje ki yu ñàkk xorom waaw mu fexe ba dootu na fen ci pénc lu nu waxati muy dëgg waaw mu fexe it ba dootuñu lekk alalu jàmbur ku nu dénk nu delloo la ko mu fexe itam ba ñuy jokk mbokk mu fexe ba ku nekk ormal ka nga dëkkaaleel mu fexe ba ñemeetunoo def lu xaram mu fexe ba ñemeetunoo tur deret ci neen tere nu lu bon ak wax ju amul fulla tere ñu lekk alalu njirim tere ñu xas jigéen digal nu nu jaamu yàlla te bañ ko bokkaaleeg leneen digal nu julli digal nu koor ak yu baax ya ca topp ndax jar na ñu ànd ak moom walla jarul ñu ànd ak moom nee na kon nag wax boobu jaafar wax ko nee na ku ko seetlu ndax di nga mën a gis xéewal bu ko ëpp doole waaw ndax nit kat lu mu kàccoor kàccoor bu dëngee rekk xelam du dal waaw nit balaa xelama dal mu yit ni ay jikkoom dëppoo naag na yàlla bëgge kooku ñépp a ci yem waaw balaa sa xela dal rekk say jikko dëppoo ak na yàlla bëgge bu ko defee sa xel soog a dal nag nee na loolu daal moo di moo di yónnentug yonent bi waaw nee na mu di yónnentu goo xam ni nag nee na xeet wi def cee tedde te di ci dëgëre gannaaw ba mu doyadee te ñàkk fayda dund nit it di ci teeye gannaaw ba mu nëxee te bon nee na su ko defee e, nooneel yi nëbbu woon ci bakkanu jaam yi nee na dootul nekk nooneel rawante gu yiw lay doon mu dëppoog la alquran la yàlla wax ci alquran yàlla nee na bu leen wujjante bu leen noonoonte na ngeen rawante na fasi kursu jëm si ci man waaw diwéy sama noon diwa man lëjal yooyu yépp ñàkk def sa warugar rekk la boo ko defee doo xam ndax am na walla amul waaw waaw yàlla nee na itam ci alxuraan xam naa ni yéen a ngi ci pénc mi ku nekk di fuftandiku sa moroom waaye nag lëfa ngi fii ci man loo xam ne moo ëpp asamaan yi ëpp suuf waaw te neex ba kenn xamul nu mu mel bu ngeen bëggee fàtte ñi ngeen bañ ak ñi leen bañ daw si leen jël si loolu waaw nee su ko defee nga xam ni bokk yonent bi ci wàllam mooy boroom xam-xam bi nga xam ni jàngoro yépp gis na leen xamit saafara ba koy saafara ndax bala ngaa mën a saafara nit xam jàngoroom waaw koo xamul jàngoroom doo ko saafara te it xàmme na li ci dund xàmme wun wu nga xam ni képp koo xam ni yenn la war ci àdduna waxuñu kat ñi nga xam ni yenn waru leen am na ñoo xam ne fa suñu yéene yennu ba faw waaye ñi fas yéene yenu nag yonent bi xàllal na leen yoon woo xam ni bu ñu ca jaaree tabarkalla kenn du sikk seen yen nee na wante nag du tee nga gis ni yu baax yooyu yépp ak daraja yooyu yëpp yàllaa ngee damm bakkanam di ko wax ni ko waxal nit ñi ni leen du yow rek yaay sama yonent amoon naa yeneen yonent waxal nit ñi it ni leen xamuloo lu ma def ci ñoom ëllëg xamuloo lu ma def ci yow sax ëllëg wax ko nit ñi dindi sa responsabilité waaw te te xiddi sama diggante ak ñoom waxal ni rekk dañu ma wax wax naa leen te nga dandu waaw waaw mu dellu wax ko ni ko ah nun daal noo xam fa nu jaar ba jàngal la li koy teg tegtale mooy jëkk ñu wax la dara xamuloo woon dara waaw wax ko nit ñi wax leen loolu waaw wax leen itam ah bu fekkoon ni yàlla coobareem dafa aju ci ma bañ a xam dara lu ma leen di wax it du xam dara lu ma leen di wax ndax nekk naa ci seen biir ba am ñeent fukki at te ma lu ma leen di wax kon nag su ma xëyee rek wax dara lu ngeen xamul woon dama ko jële ci barab waaye jógewul ci man yépp yàllaay wax yonent bi ni ko na ko wax nit ñi waaw ba nit ñi xam ni yàlla moom yëfam ah moom intermédiaire la tabarkalla waaw nee su ko defee nga xam ni boog li ñu wax ni yonent gi yéwén la koo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku dëgg la yàllaa ngi wane ni yërmandeem rek la te it di ci wane ni ngëneel gu jàmm mën a am euh, euh, trésor la rekk bu mu dénk sa dund waaw trésor la rekk bu mu dénk si dund ngëneel looluy ngëneel ngëneel mooy yi la yàlla dénk nga di ko puukarewoo di ko doxe di ko waxe waaw nga xam ne boog lépp yërmandeem rekk la waaw su ko defee nag yëpp junj na ko waaye nag tabarkalla la ah, ñu daldi xam ni ah, ah, coobareem moo jiitu ci yonent yi war a nekk yonent coobareem itam moo aju ci mu war leen a dimbali coobareem itam moo aju ci képp ku ko nekkal kenn du la not waaw yàlla ku ko nekkal kenn du la not <coughs> waaw nee ci lool nag ngay xame ni yëf yi daal dafa am boroom waaw bu bu bu cëqi cëqi yi bare it benn dellukaay rek la am waaw cëqi cëqi yi dana bare lool ba kenn ku ne defe ni la nga amee sax sañ nga ko caakaayoo waaye rek du ñàkk bés nga xam ni am ah, ka ko moom rek ko moom keneen moomu ko waaw nee loolu soo ko seetee itam di nga gis ni euh, xew-xew yu bare dana dikk safaanoo nag ak yu neex yooyu le waaw xew-xew yu bari dina dikk safaanoo ak yu neex yooyu le su keroogee nag nga daldi xam ni ndeke nit lu mu bare bare xam-xam xamul ci yëf yi lu dul lu tuuti waaw ndax kon bu dul woon loolu na mu neexe woon rek lay continuer ba faw waaye léeg yàlla wone ni rekk nit lu mu bare bare xam-xam rek xamul ci yëf ci lu dul lu tuuti rekk waaw bu ko defee nag nga dal dégg la mu wax wa yaxluqu ma la taalamuuna ak wa ma utitu min al ilmi illa qalilan yooyu yëpp nga dal di xam fa mu féete su ko defee léeg-léeg ya nekkoon ngëneel wëlbatiku dellu di ay yëf yu ñàkk fayde nga xam ni la xeet bi daan texee dana ca texee di lu ni toll waaw su ko defee nag nga xam ni yàlla sàkku rek doxu àdduna war di mel noonu rekk loolu moo tax yonent bi wax ci wax bu doy waar dafa wax ñi toogoon ci kanamam ndax booba ñaari xeet ñoo gën a màgg ci xeet yi xeet bu ñuy wax faris ak xeet bu ñuy wax ruum te booba jullit yi seen kàttan àggagul fa mu jëm ñu ngi nekk ci di néewandi ñu ngi nekk ci di xalaat sax nuñ leen di maye jàmm ba ñu mën a toog bokk ci ci seen réewu bopp ñoom jullit yi faf nag yonent bi wax leen lu leen bett mooy def leen wax ni bis bu yàlla mayee ngeen moom Faris ak Ruum nu ngeen di mel mu nekk junj bu doy waar waaw mu ngi mel ni ku nekk fii naan sama néegu ñax beeg sama tóokaru buloox bi yàlla nañu fexe ba bàyyee ma ko ñu ni la waaw bis boo moomee ndakaaru dangay def noonu la deme yonent bi ni leen waaw bés bu ngeen moomee faris ak ruum yéenay kan bu boobaa waaw xamuloo ni kii amagul dara duñu ko àtteegum dañu koy bàyyi ba xelam dal ñu seet gannaaw xel mu dal ma lu muy def waaw mu ni bu boobaa yéenay kan Abdurahmaan ibn Awf ni ko nu def rek li nu yàlla digal mu ni ko déedéet du ngeen mel noonu bu keroogee wërsëg ak euh, alal ju bare ak daraja ak yu baax yi leen yàlla di teg ci seen loxote te sama bët a ngi ci tegu bu keroogee dingeen giiroo dingeen noonante di ngeen dëddoonte di ngeen bañante dingeen ngeen dellusi boole ñi nga xam ni tabarkal la ñoo fi nekkal yàlla ak yonent bi kenn ku ne ngeen won ko ni ko noo la ëpp doole jël ko rek finq ca morom ma bu keroogee noon ngeen di mel waaw waxul ni wattu leen ko de daf ni fokk mu am waaqiun la mahalat waaw fokk mu am mu ni nag suñ ca àggee di ca dema dem njéefa yàlla ñëw mu ne bu boobaa xeet yépp yàlla dina fexe ba ñu d'accord jëm si ci seen kaw waaw sixitoo leen giiroo leen ni ay lekk kat piir di giiroo bagaan waaw bu keroogee noon ngeen di mel ñu ni ko ndax dafay fekk boog nu néew mu ni déedéet waaye dafay fekk ngeen bon ba mel ni mbuubitu taw bu tawee ba yol fu mbuubit bu bon nekk rekk mu jël ko waaw euh, du ngeen mel na ndox ma ndox ma dafa sell ni mbuubit nga ma ngeen di mujj mel yéen jullit yi bu keroogee ku leen ragaloon yàlla dana dindi ragal ka ca xolam def ca yabeel mu yab leen waaw waaw bu keroogee e, njàmbaar gi ñu leen xame yàlla dana ko dindi e, e, wuutale ko ñàkk fayda waaw euh, euh, li ñuy tudde alwahan mooy ñàkk fayda waaye ñu ni ko lu luy ñàkk fayda bu boobaa mu ni bëgg ga ngeen di bëgg àdduna ak ragal ga ngeen di ragal dee rek waaw yépp dana ñëw ma ah, bu ñëwee de kon àdduna tukki waaw mu dellu wax ni bu ko defee juróomi jikko juróomi jikko maa ngi maa ngi wax ni ndax dina mën a nekk ñu nattoo leen juróomi jikko yooyu le waaw maa ngi maa ngi ñaan yàlla te xam naa ni bu ko do bu ko bu ci dogo dana ko def ñaan gi sa du man tee mu def ko ma maa ngi leen di ñaanal yàlla ngeen ngeen bañ a ngeen bañ a àgg foofu nag ci juróom bi jikko yooyu tëkkat dingeen fa àgg juróomi jikko yi moo di maa ngi leen di xamal ni def lu bon def lu bon du feeñ ciw nit ñu ñeme di ko siiwal lu dul mbas bare na ci ñoom ak feebar yoo xam ni ñooy xam feebar ya waaye seeni maam xamu ko woon waaw def lu bon ñeme ko di ko feeñal ci mbedd mi nee du feeñ ciw nit lu dul yàlla feeñal na ci seen biir mbas ak i metti ci feebar yoo xam ni maam yi xamuñu ko woon waaw mu ni itam du ñu sàccante itam ci natt moo xam nattu piis la walla nattu dugub walla ceeb la ci butig yi walla ci marché yi du ñu sàccante ci biir natt yi lu dul yàlla xiir na leen Euh, bekkoor waaw bekkoor bu rëy ak buur bu leen ñeme lool di leen def musiba te duñ ca man dara waaw mu ne itam duñu dem ba añaan a génne lu ñu jariñe seeni mbokk ci seen alal lu dul yàlla tëj na taw nee bu dul bàyyi ma yi rek dootu ko wàcc taw nee na àgg ci tëj seen alal dootu leen ci jariñ seeni mbokk ba yàlla dana tëj taw bu geestuwul gis bahima yi rek dootul taw waaye dina xam nag ba xam ni nit ñi jaruñu bahima yépp alku mu yërëm bahima yi faf taw waaw réalité it xëyu ñu xëy firi wëllëre yàlla ak wëllëre yonent bi te yàlla fekkul noon yu bare doole mu xiirtal leen ci seen kaw ñu nangu lañu amoon waaw soo demee ba defe ni yàlla mën na la su la dara moog yonentam ah xamul fu ma ko doon waxee ti de waaye mel na ni ca réew mu ñoo wax almaañ boroom xamkat ya fa nekk ba ñu xëyee ni yàlla faatu na te la yàlla feeñal Hitler ca seen biir mu def fa lu kenn mësula def ci réew lu tax kenn du leen àtte comme yàlla fàttu na pour ñoom kay waaw ko àtte du fi nekk waaw nañu dem rek ba réew ma far ni rëdd waaw la fa des mu bàyyi leen ñu dundaat mu seet ba xam ñoom dinañu wax ne yàlla fàttu na walla déet waaw mais nag fekk ilimaan yi ñi jiitu nit ñi rafet lootuñu xalaatu yàlla di ko nattalee seen dund nee na dina mujj yàlla kenn ku ne mu def la ngay sa nattu moroom waaw ndax xol bu diisee boroom jaamoom dootuñu ko nangu ndax duñ ko du ko teew duñ ko rafetlu ndax du ko tal soo demee ba ki nga dëkkaaleel ci kër gi yàlla def ci sa xol nga ragal ko ci kaw ni mooy sa noon rekk sa dund yàqu na te yàlla ne bu ñu doylootul xelam loolu lay def ci kër ñépp pénc mu nekkit loolu la def waaw su ko defee boroom reen boo gis ni ko daggal ma ci ndax diw waaw borom fas goo gis ne ko fasal ma ci ndax diw waaw gisaanekat boo gis ne ko gisaaneel ma ndax diw diw mooma moom dana lekk sa dund ba mu jeex waaw te kat dara nekku waaye yàlla la ko teg rek ndax doyloo toog bu bàyyi la diw nag muy sa sa sa sa sa coono ba faw foo jële ñaari fifteen rek def ko ci diw waaw waaw bu diw waaxoo nga tiit génne gisuloo ko ci bëccëg bi nga ni wóor na ma ni fa mu yenn man la fa yennul waaw waaw di ko fanaane tiit ba bër set waaw waaw bu jëlee ndox sax góox galax tuur nga gis ndox mi ni acc anal leen ma xaw ma lu mu fi sotti waaw jàmm kay dootuloo ko am waaw ba yooyu daal ci wàllu jamono dafa mel ni léemu dikk nee soo ko seetloo mel na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi melal bokk jamono boo xam ni jullit yi daañu ca toll ji dana yéeme lool ndax ku xam seen njëlbéen boo gisee ñu dellu gannaaw ba mel noonu dana la xaw jaaxal waaye fekk na moom la mu gis rek lay wax yoonam nekku ci yàlla wan na ko ni ko ci kanam lii dana dikk rek wax na ko waaw ku ko fekkee baax na ku ko fekkewul baax na waaye lii daal dana am waaye yéenewuma leen ko nag la wax waaw yéenewuma leen ko waaw nangam nangam nangam nangam nangam nangam yéenewu leen ko nag nangam nangam nangam nangam nangam nangam yéenewu ma leen ko waaye rek tabarkalla ku ne gis na ko ne na rawatina ci jamono boo xam ni soxla yi dafa yokk ah responsabilité yi yokk doomu aadama di dox xamul fu mu jëm xamul fu mu jóge xamul lu tax ñu bind ko lu mu xawoon lu mu xam reen bu déwénee loola soppeeku lu mu xam ren rek bu déwénee loolu soppeeku jamono bu mel noonu waa defee mu jaaxle di laaj ànd ak laajkat yi nag bëgg gàgganti ko ci mbedd mi amma yatasaaloon waaw yatasaaloon an naba il adim waaye fekk na nag tabarkalla yàkkamti la waaye ku dee rek gindiku laaj ci mbedd yàkkamti la waaye ku dee rek ko waaw amul benn werante ku bëgg a xam nu yàlla mel dangay ngay bàyyi ba fanaan ci biir bàmmeel waaw kon di xam na mu mel waaw waaw amoon na sama benn maam bu ma daan tooñ dafa ragaloon dee lool ba mu ëpp léeg mu di ko jooy jooy yu metti ma ni ko waaw waa lii nag fu mu jëm ko xam ni tawarkale yaa ngi wér deewuloo të léeg-léeg nga jooye jooy bu bëgg dee ni da ragal de nu ni ma ndax man dégg ci boppam sax ragaluma ko waaye dañ ni suñ ma dugalee ci bàmmeel dafa am ku ñuy wax ñaari malaaka yoo xam ni dañuy indi bolde waaw ah. bu ñu koy indee nag di ma dóor dóor yoo xam ni du ma am ku ma àtte dal di rek dak gañ-gañ boo xam ne ni quoi lii nag du tax mu sotti si ndeysaan ma ni ko xisakat yee jaar foofu ñoom buñ la waxee xaw ma munkir ak nakkiir ak bolde yeeg nangam nangam kii dóor nga dem juróom-ñaari suuf kii luqati ma ne lëf li dana xaw metti lëf li waaw <coughs> waaw te ko dana xaw metti as nag ba tax na gannaaw dee daal ca la xam-xam nekk piir nag loo réere woon ko xam waaw nee na ba tax na bu dee amul woon mën nañu ni yàlla dafay caaxaan ndax itam kon kumpa du deñ mukk waaye nag bi mu bindee dee rek la kumpa deñ waaw waaw ku dee rek xam lu xew waaw ku su ko defee it nga gis ni soppiku soppiku jamono yi li mu rëy rëy bu taxawee ci kanamu xaqiqa boobu ñuy wax dee rek dafa loxo soppiku jamono yi li ñu rëy rëy rëy bu ñu déggee baatu dee dañoo loxo ñu loxee daldi daw seeti lal ba liir tëddoon fekk soppeekuwul ñu daw dem ci sëg ya fekk kuusu bàmmeel soppeekuwul seetal loolu guerre yi fi xew ak rayante yeeg xew-xew yeeg yi ñu fi sosat yi nit ñi yéem ak yépp taxagul lalu liir soppeeku waaw taxagul kuusu bàmmeel soppeeku waaw ñoom ñoo tiiñ xew-xew yi yooyu ñaar ñoo tiiñ xew-xew yi waaw su ko defee xew-xew yi bu ñu dawee seet lalu liir soppeekuwul ñu daw ca bàmmeel seet ku bàmmeel soppeekuwul rekk ñu daldi taxaw ci kanamu yàlla ñoom xew-xew yi di ko nag laa tuaxidna in siina aw axtaana dal xam ni lu nekk nag am na am na fu mu dellu nag waaw waaw nun day nooy soppiku soppiku yi ñooy xew-xew yi ñoo jaaxal nit ñi waaye nuyit yaay sunu borom rek waaw ndax dem nañu fekk laru lalu liir soppeekuwul dem fekk kuusu bàmmeel soppeekuwul te nun noo tiital nit ñi ndax nun nooy soppeeku soppeeku yi kon nag du nu man lu dul ñëw ci sa kanam rek wax la ni laatu axid naa in nasiina aw axtaana waaw di ñaan seen ñaan yu rëy yooyu la bëgg yàlla yërëm leen baal leen waaw su ko defee nag ñaan ya bare na laa tuaxidna in nasina aw axtaana ak laa tuzix qulubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan dañu lay won ni yooyooy des waaw lu soppeeku soppeeku yi bare làmmiñ bii daal du fi jóg mukk rabbana laa tuaaxidna in nasiina aw axtana rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxamilna ma la taqata lana bihi waafu anna waxfir lana warxamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin lisaanul xaal boobu du fi jóg mukk waaw rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wahab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab du fi jóg mukk rabbana innaka jaamiu nnaasi li yowmin la rayba fii inna allaha la yuxlifu almiaad du fi jóg mukk rabbana igfir lana dunubana wa israafana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin du fi jóg ndax yonent yee ko ñaan ci seen diggante ak seen borom tabarkalla nee na soo seetloo nag loolu mooy maana mi ñu wax ci yonentu yonent bi waaw yonent gi nga xam ni yonent bi dikke na ko te yonent yi ko ji jiitu dikke ko boo ko seetloo yépp foofu rekk la dellu mu ni kon nag ngi julli ci yonent yi daal tey ñaanal ñi leen wuti ci kaw suuf wa tabarakallahu ah naa barkeelu ci guddi gi dafa mel na dafa di guddi di guddi yonent bi mu mel na ci biir loolu itam màggal guddi gi ci biir màggal guddi gi nga màggal ndigalu ki nga yaakaar waaw mooy lii li ñuy lépp li sànni benn xeer jam ñaari picc mhm. waaw noonu lañ ko léebit sànni benn xeer jam ñaari picc moo nu dal ci guddi tey gi waaw màggal ko am ngërëmal yonent bi màggal ko fekk ndigalu seexal al xalifa la nga am ngërëmam muy benn doj di ñaari picc waaw waaw su ko defee nag tabarkalla yàlla dinu may nu di àndandoo di ko def fii ci xadaraam at mu jot ba nu ngi di ko def ren ci kàttanu yàlla yenn yàlla yóbbu nu ba nu def ko déwén waaw te mu tabarkalla mel na mu ko gënale ah dafa mel na ñi fi daje bëccëgu tey kuy yërëm war leen a yërëm wante it soo demee ba di leen yërëm mu mel na da bare man-man ndax dañu ni ko bëgg jariñ foog nga sawarloo ko waaw te it lii eh, bare man-man taxul mu nekk nitu yàlla ñaan yàlla yàlla ormaal ko ca ñaan ga nangul ko ko ci njabootam waaye bare man-man taxul mu nekk ndax ndax eh, pexe yi daw yépp pour mu bañ a am boo ko seetee te defuloo dara lu war fanq pexe ya nga jékki-jékki pexe ya fanqu daa war a xam ni am na mag mu ñaan rekk waaw waaw waaw oogu noonu rek la toll ñoom nag comme bu ñu meree dootuñu xuloo xamuloo ni fii ñuy xuloo meraguñu fii ñuy ngàbb rajo di xuloo meraguñu bés bu ñu meree ci allahumma la ñu jëm waaw waaw allahumma ja nag ca la kuy defaru di defaroo ba faw ca la kuy alku di alko ba faw waaw benn werante nekku ci ba tax na tabarkalla yii dafa am ñu ngi ci shariatul muhammadiya ñu ngi ci tariqa cheikh ahmed tijani waaw ah tabarkalla boo xasee tudd chariatul muhammadiya tudd tariqa cheikh nag dootuloo jàmbur loo nekk jàmbur moom xamoon na ko looloo tax mu xeroon ci ñëpp daan bàyyi ñëpp xel looloo taxi tabarkalla mu fexe ba ñi mu xam ni sell nañu ci moom ci wàllu pas-pas mu tënk leen nii mu leen tënk ci xadara bi waaye xam ngeen ni baaxam moo tax xamu leen lo li xew nu mu xewe baaxam moo tax waaw ndax talu leen ko wax du ne yéen ngi ci service ba tallu leen sax seetlu li ngeen nekk lan la waaye li ngeen nekk kooku ëpp na karaama ëpp na xarful aada waaw waaw eh, kii jaaduwul mu man nekk moom rek moo ko man ah, ante jaaduwul ndax itam tabarkalla ñi ko yàlla jox kenn du ci dof waaye ñoom ñépp nag dox lañ ci moom waaw waaw kon nag ñu ngi ñaan ci barkeem yàlla wéyal ko yàlla saxal ko yàlla def ci lépp lu mu ñaanoon mu feeñ ci waaw ñu ngi koy ñaan ci barke guddi gi ci barke borom guddi gi te di leen ndokkeel di leen nuyu di leen massawu bu baax ci loo xam ni yéen ñëpp tabarkalla yéen a ko bokk waaw yéen ñépp yéen a ko bokk nu bokk koog yéen ci biir loolu nag ñu di ci jiital kilifa yi nga xam ni ñoom la sëriñ Moustapha yabal si te Serigne Moustapha nag ci wàllu njaboot tabarkalla maag Serigne Mansour ak sunuy rakk la am ci njaboot waaw. ba tax na daal ñi mu fi yabal ñu jiital leen ndax itam bu ñu toggee ñooy taawu taalibe yi waaw teg leen ci teg ci sunu bopp yéen ñépp ngeen xam ni wax dëgg yàlla yërëm nañu leen waaye sañu nu yërmande ji waaw ndax góor gi ko xam yitteem maa ngi ko nettali sànq rek di wax ni euh, lu taalibe xër ci moom bu mu tax nga yërëm ko ndax daan nga gis moom mu def lu ëpp loolu ngir taalibe waaw ma ne at ma ñu ko waxee feebaru góor gi Maxtar Safi Fall te mu fas yéene dem seeti ko te oto du ca dem mu takkalu fas waaw moom mi ñëpp yaakaar takkalu fas fii ci Tiwaawan fas yéene seeti taalibe bu feebar keroog ba ñu génnee fas wa dafa mel ni fas ya daanu badar benn lañ ci dekkal indi ko waaw fas waa amee kattan noonu di bañe noonu mu teg ko loxoom bu tedd ba fas wa mel ni def ko yëg waaw mu sol yére gawaram yooyu le tegu ca kaw fas yaram boobu le mu téye ko laabu fas wi le tegu ca kaw ni temm min shiddatil xasmi la min shiddatil bi waaw <coughs> waaw tabarkalla keroog ku ko gis di nga man topp ci gannaawam bu dee badar baax na bu dee uxud baax na waaw waaw lu kenn mësu ko gis tabarkalla euh, euh, mel na na gaañ mel rek waaw wala ko botam ya sol bot bot yaag Eh, ndimool ndimool la mu solo niroo kenn mësu ko gis waaw na na na mu mel ci batin la mel ci zahir waaw na yëppam déggoo ci baatin la mu wax ni defe naa ni lu ma ñaan yàlla mu may ma ko ngir mësuma fàttali fu ma moye yàlla waaw waa ji loolu moom rek ko sañ a wax waaw keneen sañu ko wax ne kenn mënu ko waaw ku ko wax rek yàlla fudd sa nu nara laa wax waaw dañ di werante nekku taxaw di nitu yàlla ci bii jamono ni mu yàqu wax ni lu ma ñaan yàlla nangu ko ndax masuma moy sama borom moom rek ko sañ ah ba tabarkalle eh, eh, oh, waram waram boobale di coow ngir ba mu demee ba ca dex ga dex ga dafa xaw fees te te paxa ngi ci biir dex gi waaw mu ak fas wi forcé ko rek fas wi ni yënkam ci biir pax gi waaw xaw ma nu Ali na Abi Talib daan def ca fasam wa wala keneen di waaye moom def na ko keroog waaw waaw te taalibe bu feebar rek la doon seeti moo tax ngeen xam ni yitteem moo nekk ci yéen ah. koo gis ma nga amee tension koo gis ma nga amee tooy koo gis nangam nangam waaye bu service am ñëwee kenn ku ne mu bëmax la ci waaw bala ngaa tawatati dafa sotti waaw ci kàttanu yàlla ba tax na kon nag nu yërëm leen te bañ leen a yërëm ndax yërëm bi it bare man-man la rek te barkal la nuy bég lool xam ngeen ni bu ngeen bégee nu bég waaw te it tabarkal la yàlla ko ko defal yal na ko yàlla saxal yal na ko yàlla saxal yooyu yëpp nettali xéewalu yàlla la waaw yàlla boo nettalee xéewalam mu yokk ko boo yëgee xéewalam mu yokk ko tax kon nag nu yëg xéewalam te nettali xéewalam fa tabaarakallaahu su ko defee nag nuy nuy ñépp di gërëm ñépp di sant ñépp xam ngeen ni lii kenn ku ne sa loxo dem na ci moo tax mu mel nii shahidallahu wante lii su amul woon senegal alku waaw lii su amul woon Sénégal alku Sénégal gu ñuy sédde ku ne te Cheikh xalifa mi ngeen xam kenn du ko fa sédd kon senegal alku àdduna bi ànd ak moom alku tabaarkalla loolu mooy li ci nekk mas nu dem Louga yàlla dogal ndax bokkoon na ci euh, li góor gi daan digle moo di so soo demee Louga nga ziyaara ji Cerno Muntaga Taaha waaw yalaati ñu dem Louga àndandoo dem ziyaara ji ko muy waxtaan ak ñun mu ni mbaar ñaar la mbaaru biir kër ak mbaaru lislaam mu ni mbaaru biir kër ñeenti kenn moo ko yenu nga ni benn ñaar ñett ñeent mu ni mbaaru lislaam nag benn kenn rekk moo ko yenu waaw ci digg ba laa nekk wante mooy téye ñeenti koñ yi ca des yépp waaw waaw mu ni ci biir jamono nag moo di Babacar waaw <clears throat> mu ne kon nag moo leen jur wante su ngeen bëggee nit ñi bañ leen ëppale ci moom na ngeen fexe ba nit ñi bañ leen ëpp pas-pas ci moom waaw bu leen nit ñi ëpple pas-pas ci moom rek ëppale leen ci moom waaw keroog lii la wax te waaye fekk ne yii ñuy soow yëpp am gàcce rekk a tax ñu di ko soow ndax moom pas-pasam ci seexal Al mali boo ko xamee ci gàcce rek ngay dëkk waaw ba tax na eh, tabarkalla ñaanam yàlla du ko mën ñàkk feeñal waaw ndax li mu gënoon bëgg ñaan ko boromam jóge fi dem la fokk yàlla feeñal ko itam daan wax ni doom la ma seen maam waxoon gëm naa ko keroog ci baat yi ñu tàggoo muy wàjjëm ca boroomam te wax ci làmmiñam ni ma yéen bu diis la wante suma demee duma la sore waaw waaw mu ni man xam naa ni sorewuma waaw loolu moo fi nekk ba tey waaw e eh, lu di ñaan yàlla nag fa tabaarakallaahu ni ngeen koy bégee ak ni ngeen taxawee ci mbiram sànq laa ko waxtaan ak Serigne Mansour fi ñu toog ci saal bi ma ni ko taalibe de kenn du ko teel a wax ni ko wàcc nga ndax taalibe du wàcc mukk waaye ma ni ko Cheikh Al Khalifa de mi yii nag amuñu morom fa tabaarakallaahu waaw ndax ma ni ko lii moom rekk la nekk alalam moo ko yeyoo waaw waaw moo ko yeyoo yàlla jox ko ko tabarkalla waaw koo gis rekk mu gën a xër moroom ma gën a bëgg yëpp baax gën a bëgg yépp jëm kanam loolu moom la ko yàlla séddi te daf ko séddi woon ay kilifaam moo tax waaw waaye gàmmu gi def ngeen ci ba def ci lu ngeen mënul tabarkalla waaw dugg génn dugg génn dugg génn soow dugg génn yépp bëgg Cheikh Khalifa kontaan bëgg njabootam kontaan bëgg yàlla ak yonente ba kontaan ah yéen itam yal na yàlla dimbale leen kontaan ci yéen waaw tabaarkàlla ah waaw ñëpp tabaarkàlla tes tes tes tes tes tes tes tabaarkàlla ku nekk nekk doom rek nekk doom rekk nekk doom loolu ñëpp bëgg nañ ci wax dëgg yàlla eh, te ñu di leen gërëm ci lii ngeen tàmbali di jënd matériel di garder ndax jamono dafa baax yéen a ngi ko def mu ngi neex tabarkalla yàlla nga ko gis tabarkalla ñépp ngi leen ciy gërëm ndax itam loolu niru sa jamono la nee ñu moo gën sax niru sa baay waaw boo niroo sa jamono niru sa baay nag mu gën a baax waaw waaye mel na ni niiru ngeen Cheikh al waaye yéen a ngi wutit niiru jamono boobu nag li ngeen ci jëfandikoo nun bëgg nañ ci nu ngi leen ci gërëm di ñaan yàlla defal leen kàttan ba lépp lu ngeen ci bëgg a def rek yàlla ko yàlla mottaleeg jàmm bëgg nañ ci ñëpp ñu ngi gërëm ñépp waaye itam ñu ngi gërëm waa dëkk bi waa Tiwaawan kenn ku ci nekk génn nga sa néeg wàcce sa lal ngir yàlla ak gani cheikh al xalifa yi kon nag ñoom itam ñu ngi leen di gërëm te di leen sant bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla kenn nirootu ci nit xam naa bu dee jigéen ñi ñoom taleetu ñu dara waaw wante it ah, jigéen ju juggan sayyidatuna Fatima amul baayam